ci li nga xamante ne moom mooy dernier question bi oustaz kii nag moom nee na histoire dafa xaw a compliqué donc moom dafa nekk à l'étranger takk jigéen boo xamante ne mosu koo gis donc xamu ko mu ñëw Sénégal daal di seq ak jigéen kooku euh, seq ak moom dara mais après ci lay door a rendre compte que nekkete jabaram la muy laajte nax loolu bàkkaar la oustaz wala vu que jabaram la ba pare est-ce que nekk am amul bàkkaar comprendre ma mu dafa nekk à l'étranger c'est vrai que histoire bi dafa compliqué dafa nekk à l'étranger takk jabar Sénégal mais mosu ko gis donc bi mu ñëwee Sénégal mu jaxasoo benn jigéen mais xamul ne kooku jabaram la c'est après que la xam ne nekkete kim jaxasoolal démb ci guddi jabaram la léegi nee na nag loolu l'islam daf ko bindal bàkkaar wala vu que jabaram la amul bàkkaar kii yaa kooku mënta am bàkkaar dafa amoon intention wu mooy yàlla waaw waaw waaw te intention ba mujjul sotti. mooy bi muy ànd ak ndaw si dafa amoon intention wu sëy ak koo xam ne gelam la. voilà. far yàlla bi mu xoolee ndekete mooy jabaram jim takk da ko gisagul woon. Mhm. amoon na yéene pour mooy yàlla mais antuwul. parce que mënuñu laa fekk nga ànd ak jigéen ñu ne dañ lay dóor téeméer yar ñu vérifier ni pourtant soxnaam la mënul nekk. bi mu nekkee sa soxna rek la dagan ñëw. même boo amoon njort bu ñaaw. parce que yenn saa yi ci lislaam mën nga am intention wu def lu bon lu baax fekk la fa dafa am ku ñuy wax wax shi moom moo rey Hamza. Hamza mi ngay dégg. Mm-hmm. te boo demee Uhud. Mm-hmm. dem Makkatal Mukarram ñu lay wan fa mu tëdd ak na mu nekkee woon jàmbaar. Mm-hmm. moom wax shi moomu keroog bi mu reyee Hamza dafa xar xol bi jëloon intention wu yëy xol bi dem burusu ko yonent bi. jël paaka xotti xol bi intention bi mu am laa lay wax de. Mhm. dafa am intention wu génnee xolu Hamza yëy ko ba mu mokk mu dem burusu ko yonent bi ni ko sa xolu bàyyee ngi nii moom intention boobu la amoon mais bi mu xaree xol bi génnee xol bi comme Hamza jaamukatu yàlla la woon imaan bi nekk ci biir xol bi mu yëy ko la jot a rëcc ci imaan loolu moo ko tourné mu dem tuub dugg ci lislaam ndeke moom amoon na intention wu xar xol bi dem burusu ko yonent bi muy acte bu ñaaw mhm. mais xoolal la ko ca fekk la jot a rëcc moo ko dimbali mu génn ci ñaawte fi mu nekkoon kon kii intention wu mooy yàlla ak gelam la jëloon yàlla ni ko du sotti ki nga doon àndal sa soxna leer na leer na oustaz jërëjëf alors li moo nekk